ci teewaayu mbooloo mu takku ci la fédération xidmatul xadim bu Kidira amalee journée xasida édition 2024 mu nekkoon nag ay jamono yu am solo ci njàngum alxuraan waaye tamit njàngum xasida programme bi day programme la boo xam ne ñu ngi ko créé le 31 décembre 2013 waaye ñu ngi tëkka njëkk a taxawal bis bi la 1er mai 2014 fii ci Kidira ci 2024 bii dañ ci am yokkute ndax fii may wax ak yéen jàng nañ fi 333 kaamil ñetti téeméeri kaamil ak fanweeri kaamil ak ñett ca booba ba sorne bi tàmbaleeg léegi mosuñu koo jàpp. taalibe murit yi nga xam ne nag ñoo nekk fii ci diwaan bi seen teewaay fusoon na lool loole nag terewul organisation bi mucc ayib ndax itam matukaay yépp jël nañu ko. moo tax dañuy préparer ñetti fan yoo xam ne yëpp dañuy dem toog ci dëkk ba koy organiser ngir rek mën koo waajalee bis yi ñetti fan yëpp nag ñu ci xalaat di teg di bis bi accès. doonte sax dana dana jaar yoon waaye bu doon am manquement it bu doon loo xam ne lu am solo lay doon. bu dee nag lu soxal bernde yi jigéen ñi amal nañu ci liggéey bu matale ak itam ñu ñu ci àndal. waañ wi moom xéewal yi moom ñëpp ngi ne ndax dara manqué lépp lu ñuy def ci gém yi rek am na fii te daa doy sëkk kon lépp a ngi fi. soxna yi ñoom tam ñëpp ñëpp a ngi ci naaj fi mu ne kenn amatu jot ñoom ñëpp a ngi lekk futteeku laxasaayu nekk ci liggéey bi. fukki at gannaaw édition bu njëkk bi nga xam ne ñu ngi ko amal mai 2014 fédération bi nag daal di fiddali journée xasida bi nga xam ne at mu jot ñu amal ko ci atu ren bi nag ñu am mbégte ak sag bu rëy dalal sëriñ Abo Baraka Mbacke xalif bu njobootuk sëriñ Fàllu Mbacke ci càppandal ga nag mu daal di yëkkati ay ñaan yu am solo jàmm ak dal jagleel leen ko waaye tamit jagleel ko umma islamique bi yépp yéen ñii diñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñuy publication mën ngeen abonné Al TV te bu leen fàtte laal cloche bi